askan euh, ñu ngi leen di jottali communiqué numéro 74 ci lim bii ñu jot ci mbas mi ñuy wax Covid fii ci senegal ci bësu tey bii di alxemes fukki fan ak ñeent ci weeru mois de mai 2020 jot nañu résultat examen virologique yi nii ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar test yi nga xamante ne réalisé nañ ko. juróom-ñetti fukk ak ñeent dellusi si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-ñaar fukk ak ñett moom lañuy wax contact mooy yi nga xamante ne ñu ngi leen di topp te di leen di saytu suñu bës bërëbu liggéeykaay yi fukk ak benn ci ñoom moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi nekk ci diwaan yi medina ci ndakaar fii benn Grand Yoff benn Patte d'Oie benn Gueule Tapée benn Amitié 2 benn Guédiawaye benn ñoom ñooñ ma lim yépp ñu ngi fii ci Dakar ñooro ci Kaolack am na benn Ziguinchor mooy Ziguinchor am na benn Touba am na ñett juróom benn fukk malaat yi nga xamante ne testé nañ leen xool nañ leen bi ñu leen gisee gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro yi wër nañu juróom benn cas am nañ ko ñu tëdd ci bërëbu sawetaas yi ci hôpital yi may bëgg lim hôpital Fann am na benn hôpital régional booy fay si jigéen soor am na benn hôpital principal am na ñeent ñi nga xamante ne ñoo des tëdd ci lalu hôpital yi ñu ngi am tan ñu doolee ci encore dina karlu ndax Sénégal amaat na benn doomam bi génn àddina moom mooy def léegi mu nekk ñaar fukk ak ñett nit ñi nga xamante ne génn nañ àddina ci mbas mi ñuy wax Covid kooku nag suñu benn papa la bu am juróom-ñaar fukki at ak ñeent mu ngi dëkkoon Parcelles Assainies mu ngi génn àddina tey jii ci fajar gi mooy bés alxames bii nii ci l'hôpital principal. ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi jaal ay mbokkam ak askanu Sénégal yépp di ñaan yàlla xare ko àjjana. bas mi Sénégal ba mu fi duggee ba léegi ñu ngi tollu ci ñaari junni ak téeméer. ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñi nga xamante ne ñoo ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar wër nañu ñaar fukk ak ñett génn nañ àddina ci lalu hôpital yi tey ñu tëdd ñu leen fay faj ñu ngi tollu ci junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi doole ci li ñuy wax askan wi ñu topp digtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mi du leen wàll wala tamit bu duggee ci biir dëkk bi ci askan wi du law law bu metti bii nga xamante ne mu nga koy def ñu ngi leen di gërëm leen di sant wasalaam